Allahu Allahu Allahu Allah Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Euh, nous voici dans le village de Ndiate. toujours en partenariat avec euh, un de nos meilleurs partenaires, l'association Juste 5 euros de France, qui avait déjà financé deux, puits avec sa couillou et qui reviennent encore pour deux autres puits, dans celui-là de se trouve dans la commune de Diaoulé, dans la région de Fatik. Et le besoin d'eau dans cette zone et un peu partout, on va dire. Alhamdulillah, quand on est arrivé, euh, on n'a pas on n'avait pas à se poser des questions pour savoir si c'était vraiment utile de faire ce puits. Déjà au téléphone, ils nous avaient expliqué qu'ils en avaient bien besoin. Et en arrivant, on a vu que les femmes étaient euh, parties tôt le matin chercher de l'eau. suñu dëkk bi dafa amul ndox wante ñun ci suñu bopp ci teen ci borom ñag yi ci lañuy ñuy root te suñu amoon ndox moo xamante ne dañoo jege nuñ dañuy bàyyil <coughs> dañuy bàyyil borom ñag yi ñu nekk ci seen ñag di roose suñu amee nag teen boo xamante ne jege nañu dañuy ñëw di bugg di rootati ci teen bi bàyyil boroom ñag ñi ñuy root ñuy roose ci seen teen am na benn am na dëkk yoo xamante ni ci suñu bopp dëkk yooyu am nañu teen wante seen teen bariwuñu ndox dëkk bu amul ndox dëkk ba dafa mel ni naatul dëkk balaa naat daal dafa am ndox ndaxte ndox mooy yore dëkk ñun de bu ñu amee teen moom dina bax si ñun torop parce que bu bëggé bëggee ta amuñu teen dañuy dañ ci téñ yu sori ta mon na tardal añ bi mon nañ tardal lu bëré daal waye bu yalla défé nak ñu am téñ bu jégé ah santé yalla parce que ndox mom bu amé ci dëkk nga dañuy am lu bëré waye bo tog tok ta amo ndox bu bëré mon na la yaqal lu bëré parce que mon nga togg te heure bi nga mon wara togg ndox tok bi mon na tardé kon nag bu ñu amee ndox moom ñoo ngi gën a sant yàlla di ñaanal ñu ñu may ndox ñu am gudd fan ak wérgu yaram ñoo ngi ñaanal waa Sakku Yiw bi ñu may teen bi yal na leen yàlla may gudd fan ak wérgu yaram luñ bëgg ñoo ko xam yal leen ko yàlla defaral. wax dëgg yàlla eh, jafe-jafe ndox mi ñu am yéen a ngi yéen ñuy dimbali bu baax a baax a baax mais ndimbal bi nag wax dëgg gis nañ ko bu baax ñu ngi lay ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax ci kanam yàlla. wax dëgg yàlla def ngeen waa bu baax waa dëkk bi am nañ ci kontaan bu baax wax dëgg jëlaat ngeen jëf def ngeen bu baax ndax lii lu jafe la woon te wax dëgg dam ngeen ci daw boo xam ne eh, weesu na ak lu ñëpp yàggoon a soxla la xëy na doole moo ca yëggutoon waaye so euh, yite bi moom demoon na dayo kon bu ngeen ñuy dimbale ci ndox war nañ leen a mën a sant ba euh, fu cant yëm liggéey bi nag man mii maa koy liggéey li ma gënal mooy teen yi ngeen yi ngeen ja eh, yi ngeen maye yëpp suma sañoon bii bi bii nii moo ciy gën moo ciy gën a dëgër moo ciy gën a rafet moo ciy gën a bari ndox ki nit ki buñ lay may té yéné yéné la lu lu bax nga bolé ci nar koo liggéey liggéey xanaa doo ko liggéey liggéey bu bon. Donc, euh, Alhamdulillah, ce puits est à 7 mètres et le puisatier a déjà atteint la nappe. Euh, on va dire d'ici encore une semaine, voire 10 jours, tout sera fini, bismillah. Euh, ça, c'est une preuve aussi de la solidarité islamique. Euh, cette action transversale de la part de Juste 5 euros qui n'a jamais mis ses pieds au Sénégal et qui a confiance aussi à son partenaire Sakouyou pour venir jusque pour à partir de la France financer ses puits. On les remercie on invoque Allah qu'il les fortifie et qu'il euh, soude leur association et qu'il leur laisse sur le tawhid.